si euh, Walfadjri ñu amal waxtaan bu am solo par rapport ak euh, tolluwaayum euh, réew mi rawatina si wàllum politique bi ak voilà coow li nga xam ne mën nañu wax na ba tey mu ngi laal wàllum parrainage liste yi nga xam ne fi mu toll nii un peu partout si biir Yewwi Askan Wàllu Sénégal coow li bëri na si bu baax Pape Makhtar dañuy wax lu bëri par rapport ak. Euh, les profils politiques mais fu mu toll nii euh, de profils yoo xam ne mën nañu wax ne ñoo rien à voir euh, la politique pour ne pas ku mel ni comme Pape Fall ak ñeneen ñi ñoom tamit dugg neen aussi si langum politique bi est que mën nañ am si yaakaar. mais bien sûr comme <laughs> ni Pape Djibril moom yaakaar parce que déjà ndaw la am na am na am na xarañte bi am nañu yaakaar bu baax ci moom parce que tey xam nga. bu mbir amee dañu war a poser wu question lan moo tax. Mm-hmm. xam nga njàpp booy yóbbu booy yóbbante. Mm-hmm. ngay yóbbante ay at sa yóbbante mun a yegg. Mm-hmm. mais dina tool foo xamante ni waaye demal sa bopp. dañu yàgg toog suñu kër. di yónni ñi nga xamante ni dañuy tuddee ay baatu askan bi ñoo xamante ne dañ leen ay député du peuple. mais malheureusement du def seen liggéey bu ñu demee ci assemblée ñii dañuy nelaw ñii di seetaan ay film ñii di ñii di ñii di xasante ak di dàggasante alors léegi ci ñi nga xamante ni dañ doon yóbbante mais ñeen ñi jël seen responsabilité. ni man kon dama doon yónni njàbbite bu demee foofu di nelaw jël un million cinq franc wala un million cinq cent def ko ci poosam mais léegi xaaral ma jël li nga xamante ne mooy sama yóbbal ma demal sama bopp ba fi nga xamante ne mooy fi ñuy débaawee ñu waxee ko fa et je pense que dafa nekk mbir yoo xamante ne ñu wax a encouragé la encore que dañu ni assemblée nationale mooy pencum ndaw réew mais ndawum réew pour nga mën ko doon il faut nga nekk ndaw déjà mm-hmm. mën a dem di déglu am capacité d'écoute boo dégloo ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay jottali parce que loolu kese nañ leen demandé déglu leen lan mooy jafe-jafe askan bi ngeen yóbbu ko ci fi nga xamante ni mooy pencum ndaw réew mi boo leen jàkkaarloo député euh, xam nga lu mu tudd euh, ministre ngeen ni ko monsieur ministre ñun jafe-jafe yii nañu dégg ci askan bi te askan bi bëgg nañu ay saafara mais loolu nag wax dëgg yàlla bu ñu déggee ñenn ñi nga xamante ni jàppee nañ leen ay nit ñoo xamante ni yu am vertu nañu yu am yu am yu am yu am yenn yenn yenn yenn valeurs yi mënuñu def lu dul am njort bu rafet maintenant lii lii lii xew nag après dina xew mais euh, dañuy def lu am présomption de participer aussi euh, <laughs> mel ni comme aussi la <laughs> réalité politique est xam nga xam nga xam nga dans une histoire moom euh, dañ lay naan euh, chacun n'a que sa version à donner. voilà te toutes les toutes les histoires ont deux versions. Mm-hmm. ku nekk version bi la arrangé ngay wax. am Amsadou Sow Sidibé di suñu professeur ak respect biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko ameel yëpp dañ ko koy delloo. Mm-hmm. parce que macha allah nit koo xamante ne la contribué na ci formation ay sénégalais yu bëri man mi jàngal na ma. Mm-hmm. alors kooku. amul dara loo xamante ni dañ ko koy jàppal wala dañ ko koy kiiwal. Djibril Fall aussi Pape Djibril Fall boo xoolee le temps bi muy nekk ci média yi taxawal na fa sénégalais taxaw boo xamante ne wala taxawaay boo xamante ni ñu bëri dañ ko rafetlu donc ñoom ñaar man je pense que ni au lieu ñi wa di wut leen lu leen féewale dañ leen war a fexe ba boole leen parce que ñàkk waxtaan kese moom mooy indi yenn problème yi je pense que ni bu ñu fexee nit ñi nga xamante ni ay kilifa dañ ay mag dañu bu ñu fexee ba ñoom ñaar ñu waxtaanaat seen biir dinañ déggoo parce que Amsatou Sow Sidibé bu nekkoon pour ay privilège rek nekk na fi premier ministre ndax am na ay jamono li ma lay wax nii lu ma xam la. Mm. président Abdoulaye Wade li ma xam laa lay wax. Mm. président Abdoulaye Wade da ko bëggoon def premier ministre. Mm-hmm. mais am na yenn conditions yu si tegoon nangu ko woon. Mm-hmm. donc kooku am na ay valeurs. te je pense que aussi Pape Djibril am na ay valeur mm. donc ñoom ñaa bu nekkee ñoom ñaar ñoo bokk valeur yi nga xamante ne koy prôner di ko di ko défendre mm. war nañu mën a trouver li nga xamante ne mooy terrain d'entente mm. encore que affaire coalition moo demee noonu te gis nga bu nekkee ci coalition parfois dañ lay tuumaal te yow doo sax yëg am na lu bëri loo xamante ne day xew ci ay coalition yow après ngay doog ay yëg nit dina ñëw dem si sa tur wax ci sa tur jëf si sa tur te doo ci xam dara mm-hmm. te pourtant après faute yow nañ koy wax donc je pense que ni daal vraiment nañu leen fexe ba rassembler leen pour ñu mën a retrouver wu waat mën a continuer dem ci essentiel parce que Pape Djibril Fall dafa soxla expérience ak expertise Amsatou Sow Sidibé Amsatou Sow Sidibé soxla ndaw ak euh, lu mu tudd valeur yi Pape Djibril Fall yor parce que am Amsatou Sow Sidibé fu mu mënta dem Pape Djibril Fall mën na ko fa demal peut-être nag Pape Djibril lu mu xamul am Amsatou Sow Sidibé wax na ko mën a xamal loolu daal laa jàpp. Hmm? les gens n'en parlent pas beaucoup. lan ci euh, la coalition Aar Sénégal ah, Matar aussi on doit en parler. mais bien sûr est-ce que nekk aussi euh, euh, coalition bi nga xam ne mun nañu wax nañu ëpp aussi constance aussi par rapport à leur démarche gis na ñoom coow yi ñuy dégg sax un peu partout si yeneen coalition yi ñoom dafa mel ni réglé nañ aussi ces questions Pape Matar. ban coalition. <laughs> non man dama déggul question bi de boo dama lay laaj. Ah, Sénégal ah ok Aar Sénégal waaw mais Aar Sénégal euh, Aar Sénégal waaw coalition la de comme coalition yi mais bon euh, du ñu wax si ñoom am na yenn coalition yoo xam ne kenn waxu si ñoom de je pense que bu ñuy wax ci ñiy def actualité nañuy wax te jamono jii nii bu ñuy wax mooy. non non non actualité actualité parce que yow dañuy commandé actualité li li xew tey jii ak fan yi lu ñu doon waxtaanee mooy yeewi askan bi seen seen seen seen liste départementale de Dakar ak euh, liste benn bokk yaakaar tey jii ñoom bu ñu nekkoon ci situation boo xamante ni dañuy def actualité mais dañ si waxtaan. est pour ñun ñi nga xam ne ñoo nekk. Euh, Euh, nit yi médias yi ñuy suivre actualité wala di suivre loo xam ne sax peut-être euh, mun na euh, bañ a amal njëriñ askan bi tey est-ce que waruñoo guider aussi les populations par rapport à leur choix aussi parce que bu ñuy wax wàllu askan wi euh, Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne mooy yeewu askan wala askan wi dañuy gis ne carrément euh, ay dérive rek dañuy kii si ñoom une hmm. coalition boo xam ne bu mel ni comme wàllu Sénégal wala sa euh, Aar Sénégal wala Pape Djibril Fall nga xam ne mun nañu wax ne mun nañoo apporter une touche neuve populaire si assemblée nationale tey est-ce que jotul ñu def focus aussi permettre les yi pour ñu gën a xippi aussi seen bët aussi Bamata waaw mais Euh, Pape Djibril Fall mooy la de sa personne. Mm. Euh, coalition la am na ñeneen ñoo xamante ni ànd nañu ak moom te gëm nañu ni que dañu war a servir effectivement les Sénégalais ak Sénégal aussi coalition la de même respectabilité ah. parce que aussi ñu fa nekk waaw bien sûr ay ay anciens ministres fa nekk ak nit ñoo xamante ni ni ma la ko waxee sànq ku mel ni Thierno Bocoum ku mel ni Abdourahmane Diouf Thierno Alassane Sall muy seen tête de liste ñoom ñëpp dañuy jàpp que ni ay nit valeur nañu donc effectivement. coalition la boo xamante ni war nañ si mën a war nañ si mën a waxtaan euh, sensibiliser sénégalais mais sénégalais ñooy tànn ban coalition nañu war nañu war àndal maintenant li li li li li li ma li ma trouver euh, quand même mu mu xaw a nekk mbir bu domage mooy en fait opposition boo ci nekkee da ngay jéem a fexe ubbi sa dënn nga yaatal ko parce que boo nekkee ci opposition nga yaakaar ni que ni ngay defee opposition kese moo baax dangay sonn te le plus souvent Euh, mooy li ñu doon wax léegi rek ci affaire Pape Djibril Fall mm-hmm. ñu bëri tey jii dañuy mere yeewi askan wi parce que dañuy naan mës naa wax dara ci Sonko ay xale saaga ma ci réseaux sociaux yi Sonko moo ne ci ginnaaw yeewi askan wi moo ne ci ginnaaw déglu leen bu baax mm-hmm. ku ci wax lu mu lay waxal mooy ay affaire de dictature ay pensée unique ay affaire de terrorisme parce que dañuy nekk di ñu saaga di ñu xuloo mais léegi nit ki c'est pas parce que ay militants am ñi ngi def naka sudul noonu est-ce que sax ay militants am nañu ñooy def naka sudul noonu rek yow da ngay jàpp forcément que ni tey jii pour nga mën a xeex loolu il faut nga dem créer benn alternative je pense pas que loolu loolu war a doon loolu war a doon alternative bi parce jamono jii nii Thierno Alassane Sall euh, Thierno Bocoum ak ñooñu demoon ci li nga xamante ni dafa taxaw ba pare parce que aussi élection dafa am coalition bee dem ci élection. xam lan mooy élection am ci benn expérience am ci ay acquis. mais idéologie aussi dafa am aussi. waaw non non waxuma la waxuma la waxuma la xam nga dafa dafa am ay dafa bëri ay kii dafa bëri ay euh, lu mu tudd dafa bëri ay mbir am na dynamique unitaire bu opposition war a demee mais am na convergence de maanaam ngeen demee ci alliance mais boo leen demee ci coalition électorale yii nii bëreetu fa ay convergence de li fay bëri mooy contexte bi lan la ñu permettre ñun ñu ne ci ku jegi parce que tey am na lu bëri loo xamante ni boo xoolee ni man bu ma amul li ma bëgg pouvoir bi dina am majorité te bu amee majorité am dina doxal lu ko neex kon est-ce que man du fàtte sama bëgg-bëgg dem ànd ak njaab ñu jéem am lu ñu bëgg parce que contre pouvoir bi seul la pouvoir arrête le pouvoir contre pouvoir boobu foog mu am donc man li ma trouvé dommage loolu kese la c'est-à-dire munoo ni élection local yi intéressé wu la entre guillemets élection législative nga ñëw positionné wu dem taxaw ni da ngay créer beneen fois loolu man damay dama dama jàpp que ni du démarche bu baax mën naa juum nag mais waroon nañu mën a quand dem ci li nga xamante ni lu existant la parce que euh, yeewu askan bi yàggul ci élection locale yi la juddu waroon nañu mën a dem ànd foofu liggéey fàtte seeni bopp fàtte seen frustration maintenant bu ñu demee ci présidentielle nag ku mu neex nga xool ni man de diw laa mën a àndal pour dem ci présidentielle ngeen ànd dem parce que gis nga mi local di législative li gën mooy ngeen fexe ba présenter ay liste yoo xamante ni yu unique la présidentielle nag li gën ci mooy ñu am ay candidature yu bëri parce que candidature li muy gën a bëri mooy tax ba ëllëg bu ñu demee ci deuxième tour bi ñëpp booloo dem ci ki nga xamante ni moo ci gën a baax le position ñu dem euh, imposer imposer imposer président bi euh, mu jóge fi donc man côté boobu kese laa gis mais je pense que ni bon euh, nit ñi ñi nga wax si ñoom ah, am nañ même respectabilité bi am nañu même ambition yi dañ leen di souhaiter bonne chance rek mais du question de kii mais bon am na représentativité yi aussi yamul tout à fait ñu ngi wax ci yi waaye OFNAC PAMATA génne ay rapport